indi na ci ay coppite yu am solo euh, indi ay terangam yu njanj macha allah pour yéen yi nga xam ne yéen ay téléspectateur 2STV yéen a ko moom boobu ba léegi gis ngeen ni bañ tàmbalee la laataak léegi ñu ngi joxe li nga xam ne mooy sunu ay panier yu yanj ànd ci ak sunu ay sponsor officiel Orange Bisco ñoo ñuy gunge saa su nekk Madar Dano Agroline Tomate Senico MSPT charcuterie Sia Gros jus pressé ak Aquaterra eau bi nga xam ni mooy eau légère bi eau bu pure bi en riche en magnésium wax dëgg yàlla fooy dem rek mën nga koo gàddu ndax da lay wéttali sa yoon mooy Aquaterra eau bu baax bi duñ ci benn yoon nag wax dëgg yàlla téléspectateurs yi ah yéen a ko moom seen ay xéewal la 2STV moo leen koy baaxee da ngeen dugg ci 88 628 14 13 ngeen mën a am ci xéewal yi rek wax dëgg yàlla tey moom euh, macha allah am nañ fi euh, sunu ay téléspectateurs ya nga xam ni ñoom gagné nañ ci pañe yu yàññ yi xam naa incha allah léegi rek dinañ leen ko wan. ngeen ñëw fi nga xam ne mooy ci plateau Hady Yaakor ñu wan leen ko ba tey la 2STV ah indi ay coppite yu am solo ci li nga xam ne mooy programme am gis nañ fi sànq euh, oustaz Maodo Faye euh, ñëw fi nga xam ne mooy 2STV def fi émission bu am solo boobu di yoon bi ak yeneen ak yeneen wax dëgg yàlla ci mel ni kàddu diine ji ak imam Dame Ndiaye Tafsir Abdoulaye Gaye moom wax dëgg yàlla boobu ba léegi yeneen koy gis ci li nga xam ne mooy waxtaan bu am solo yi mu fi def ànd ci ak euh, tata aussi tata Mbayang Tia moom aussi mi ngi am waxtaan bu am solo di ko amal ak euh, Ndeye Peta ak ki nga xam ne mooy imam Ndaw Alamine dina fi ñëw émission Alamine ñu ciy ànd ak imam Lamine Dramé cant gi ak Omoro Sukoru Koor ak ki nga xam ne mooy Chérif ay dara ak Tafsir Gaye ah macha allah wax dëgg yàlla sunu ay programme dafa riche nag 2STV daal moom daanaka ramadan gi moom wax dëgg yàlla yéen ñu toog di seetaan xam naa ni kontaan ngeen ci moom. Euh, gis ngeen chaque jour du lundi au vendredi émission bu nga xam ne mooy émission du soir présenté par Pape Sidi Fall euh, yéen a ngi koy gis tàmm ngeen ko chaque jour encore plus gis ngeen saa su nekk moom heure bu baax bi moom moom moo ko moom waaye ni ngeen ma def ci tumuranke bi mere naa leen torop mais amul benn problème je gère garaaw c'est la 2STV amul problème tout est di ngeen ko am tous les vendredis ah wax dëgg yàlla bilaal ngeen am ci agro ci moom animé par Omoro soo maam Mama Yaay Boy la noirceur demen dina fa ñëw incha allah tous les dimanches ah kontaan naa de damaa bëgg ngeen dugg daal ma baaxee leen ci xéewal yi ci 88 628 14 13 wax dëgg yàlla sama produit yu baax yaa ngi nii maa ngi fi seen ay pastami ah pat bi nga xam ne wax dëgg yàlla du jël temps te boo ko toggee day neex te sell meew danoo mi ngi may gunge ci émission bi nga xam ne mooy Hadiya Koor dañ maa mbéj noonu ah mën naa ne allo allo. oui soxna si ci loo ne. oui ma chérie ça va na nga def. tu vas bien yaa ngi ci jàmm. naka koor gi ñu ngi leen di déwénal bu baax a baax. koor gi mi ngi nii di saf rek xam nga caamee ni moom wax dëgg yàlla moo lool mais ñu allah naka koor gi bàyyi leen kay enjoy bu baax. dégguma yokk sa voix tuuti xanaa koor gi. dara jàpp yaa ngi enjoy koor gi bu baax. dégguma. ma ne yaa ngi enjoy koor gi bu baax. mu ne ñu ngi laan. ndax yéen a ngi dund koor gi bu baax. ñoo ngi koy dund de ñu ngi koy live on direct nii chaque jour rek di ko. gérer yow yaa ngi woor est-ce que yaa eh, ca ca mbere day woor nag. wuy <laughs> ma damaa xam sama koor du ma boole ak wax juree rek pat laay def moom. Ah, mere ñëpp nag kon yan te yombal ñu incha allah. ah dégg lool mais noonu tudd fan nga ñu woowee noonu. <laughs> laa tudd. nan. maa waaw Sarr. Maguette Sarr. waaw. Sarr Sarr nga sant. waaw. ay yéen saareen bi dina jeexal ndogu beeg li nekk sama taabu bi di nekk laay laay Sarr bëgg ñebe fi ñu toll nii xam naa yi la taxaw lii rek la de. non sax du loolu sax. yow toll nii xam naa ñi nga toogal fi ñu toll nii ñu ngi naan nii. du ma lekk nag loo xamul nag turu yàlla laay dundee. mukk ci àddina saaree nag turu yàlla ak saween. turu yàlla laay dundee. tool yàlla pini na leen ci ramadan bi. <laughs> gis nga gis nga. fan nga ñu woowee noonu ma chérie. Medina Medina. ani waa Medina. ñoo ngi fi ñëpp alhamdulilah. ban ruy nga ñu woowee noonu. Beteng ang Ciss. ah dégg loolu mais yow dama laa bëggoon may ci pañe bi. ah ya wax lii ah, ah loolu de dina ma ah, neex. bëgg naa la may de bul coupé waa Régis jël sa tour suba incha allah nga jël si ko en direct. waa incha allah bul wax dara ma chérie dina ma neex lool. yaa na tax suba ñu tase ndax yow rek. <laughs> kontaan naa <laughs> kontaan naa merci beaucoup def leen ni moom ngeen woote ci 88 628 14 13 ngeen mën a am ci xéewal yi rek ba tey ci euh, détergent yi nga xam ne wax dëgg yàlla boo bëggee sa kër set. say vitre di tàkk nga mën cee seetu utiliser li nga xam ni mooy waaw détergent bu baax bu efficace ah kër gi di di di set wax dëgg yàlla lii daal laaw la ca daal ci suñu ay euh, sponsor Linguère mi ngi ñuy gunge tomate bi nga xam ne wax dëgg yàlla waaw wér yaram daal moom moo ci baax tomate bi meew bi ah dabba yaa ngi may gis nii man sama caméraman yi sax il faut après wax dëgg yàlla ma baaxee leen li nga xam ne mooy pañe yu baax yi As Pape Samba Daba ah yéen moom damay wàcc léegi jox leen seen pañe à part xam naa ne ay sot dina ma poñe waaye maax moom ñoo koy ñoo koy joxante waaw téléspectateurs yi tey daal dama fi am ay gan wax dëgg yàlla ñoom ñoo woote woon depuis lors ah ñoom dama leen def lu dul woo leen ñu ñëw sama plateau bu yaanj bii Hadia Kone avec la 2STV macha allah ñu ñëw jël si li nga xam ne mooy seen ay pañe riche rek dëgg neexu ah sama première gan gi na ñëw ah moom daa jongo ma sax ba yàqu nii kii kan la nii tamit yow est-ce que yaa ngi woor sax. waaw. ah <laughs> maa ngi woor de. est-ce que yaa ngi woor sa kanam gi yaa ñu na de. ci loo ne. yaa ngi ci jaam maa ngi ci jaam bu baax noo tudd. caama faccaam. faccaam. faccaam eh, waaw kii sama mbokk caamen la dëgg neexu moo tax caamen yi gis dañuy yaañu ba yàqu nii. <laughs> baa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm bu baax da nga woote woon keroog ñu may la li nga xam ne mooy pañe. baa mhm, kontaan nga ci. waaye kontaan naa trop. Mm. émission bi moom am na solo lool. Mm. waaw yéen a ngi koy béggee. ñu ngi koy béggee bu baax loo wax loo wax la 2STV. waaw xanaa di leen ñaanal rek. Mm. yàlla na télé bi jëm kanam. amiin ci barke koor gi nga xamante ni ak li ngeen ci def nii ni mu rafetee nii. yàlla na leen yàlla may yoolu koor. ndeysaan waaw kontaan nañ ci trop trop trop. ñoo gën a béy kontaan nañ ci trop. du ma la téye parce que am na ñu taxaw fii. Mhm. da ngay taxaw ma offrir la li nga xam ne mooy sa pañe d'accord xam naa ni moom fi toll euh, boo suurul doo ko téye daal. dégg nga sax dama ko attanu. téye ah, moom am na solo. Euh, maa la ko fi loolu tegal la ci <laughs> lii. xanaa neex na. Ah, waaye lii moom ëpp na di. ah lii de laa def ak yow. ah kontaan naa. waaw yal na yàlla fay émission am na solo trop. la 2STV ah. moo def lu ni mel waay kontaan nañ trop. ah kontaan kontaan nañ trop. ayca dawal gaaw bombal kër gi ba set nag. ok defar naa gaaw gi dawal gaaw. <laughs> ok jërëjëf waay kontaan naa ci yow. merci waay. ah ma gunge nii rek. tegal noonu nga ñëw jëlaat bi ay ca def leen ni moom ah gis ngeen wax dëgg yàlla ñun dañuy maye suñu ay pañe riis ah <laughs> baax na <laughs> merci sama gars yi daa mel ñu ngi yëngatu de ay ca mën naa la jël allo alo allo waaw soxna si ci loo ne maa ngi fi baa yaa ngi ci jàmm sant yàlla bu baax noo tudd ak fan nga ñu woowee noonu maa ngi tudd Awa Sané waaw aw Sane yow daa mel ni koor gi dalaa téye nii de mënoo sa wax bu baax. non téewuma sax de. ah. dama xaw sonn rek. wala da xëddul. non xëdd naa sax. ah aw Sane yow daa mel ni xëddoo. ah xëdd naa bu baax sax. fan nga ñu woowee noonu. maa ngi leen woowee fiij mi. fan. géejawaay fiij mi. géejawaay fiij mi. waaw. naka foofu nu ngeen dundee koor gi. ah moo ngi nii di neex rek. naka mbedd bi ba gaa yi ñu ngi joxe koor yeeg. xaw ma mburu yeeg yooyu. waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax. ah waa noonu la kontaan naa ci woote bi da waaw kay maa gën a kontaan. nga bëggoon ci xéewale. waaw. suba bul coupé waa Régis jël sa tur ci suuf suba nga ñëw jël si sa pañe incha allah. waaw kay merci. jeex na tàkk ayca mu mu gaaw tuuti temps mu ngi ñuy xaw a xooj ki ci topp na ñëw ñu offrir ko li nga xam ne moom tamit mooy pañe. xadiya euh, kooram rek wax dëgg yàlla ah kii de sunu papa la moom sunu papa yi sax dañuy seetaan di béggee li nga xam ne mooy xadiya koor papa maa ngi ziar. ñu ngi ziar. maa ngi ci jàmm alhamdulilah ça va bien. sa doom daa mel ni moo woote. waaw moom de moo woote. la de <laughs> sa tur <laughs> la. maa ngi ci jàmm. ça va alhamdulilah dañ bëggoon offrir li nga xam ne mooy pañe sukkaru koor rek. ah kontaan nañ ci yow de papa ji. waaw la ca. ñu de lañ bëggoon def ak yow rek. ah waaw leen day. ñu leen di gërëm rek waaw di leen gërëm di leen ñaanal moom damay tegal lii nga jàpp rek di ñu ñaanal papa. ok <laughs> la wax waa 2 ah, di leen ñaanal. Mhm. télé bi jëm ci kanam parce que man mooy sama télé. ndeysaan ah, ndeysaan sama programme yëpp lay suivre. dégg loolu ah, loolu neex na yëpp allah kontaan nañ di jàpp ci di ci julli di ñu ñaanal. incha ci kanam ca kaw ca kanam. <laughs> merci beaucoup tonton merci. bul demagum ñi ngi ñëw merci beaucoup ayca ki ci topp ni lañ koy defee ah ñun duñ taay benn yoon ci di leen bëgga ah kii jantal booy la de ci loo ne. yaa ngi ci jaam jaañ naar bi wala du moom. la ci loo ne. sant nañu la yaa ngi ci jaam. alhamdulilah waaw noo gisee li nga xam ne mooy hadiya koor. ah di ko béggee rek. Ah. waaw xam ne innovation bu rafet la bu ah. te ñu ngi koy béggee bu baax. waaw yéen a ngi koy ñu ngi ko yëg bu baax kontaan ngeen ci la 2STV. bu baax a baax tax na yëguñu koor gi. yeex na taak yow baa yaa ngi woor sax. bu baax. sa waay eh. sa kanam gi dafa leer de. waaw ah, gis nga tool bi sa kanam gi leer de. waaw laa de si bi jox la xadiyaka. ok merci beaucoup. ah ñu de laa def ak yow. nii rek xam naa après. bu émission bi jàllee rek nga daal di ñëw ramasser ko. amul benn la merci. merci bon ndogu dégg ngeen. bu nag jox leen sama wàll. <laughs> waaw mais euh, kontaan naa Pape Samba c'est le bon. ah macha allah waa nii de lañ lañ ñu defanteeg yéen ci lu baax wax dëgg yàlla 2STV ak li nga xam ne mooy hadiya koor j'espère que kontaan ngeen ci li nga xam ne ñun ñu ngi leen koy jox muy li nga xam ne ay teranga ci ngeen bokk ah xëy leen di woote du lundi au jeudi incha allah bu baax bi heure bi rek la ñu koy séddale muy neex ah di ci am li nga xam ne mooy tuyaaba macha allah wax dëgg yàlla suba dinañ fi ñëwaat yéen ñi woote suba jësi leen seen pañe ñeneen ñi bu la neexee tamit ñu woote mën naa ne allez bon ndogu merci beaucoup à demain ciao